kuréel gu bees juddu na ci biir APR bu Touba ñu duppee ko cadre de concertation yaatal APR ci Touba kuréel gi nag ñi ko sos ñu mën see nemmeeku ñi nga xamante ni bi ñuy sos parti bi ñoom kat ñoo sa jiitu woon waaye tamit amit ñu leen dabu waaye li si gën am solo bu ñu sukkandikoo si Mor di conseil économique social et environnemental bokk si kàngam yi ne kat du leen lu dul jéema taxawal parti bi foo xamante ni àggu fa si Touba. di joxe information askan wi muy àgg si ñoom waaye tamit di défendre bilan wu njiitu réew mi ginnaaw bi nemmeekoo ni Touba rëy na rëy boo xamante ni bari na ay région wala ay communes d'arrondissement moo leen ëpp cadre yu mel nii day tax rek ñu mën a renforcer parti bi mu mën a àgg si biir askan wi. dëkk bi Daaru man Mannaan gi nga xam ne gi fi laa jóge mu ëpp commune Fatick Daaru Mannaan village u Daaru Mannaan euh, daa Touba Daaru Tanzil Daaru Xuddoos dégg nga maam euh, Kër Ñang village yooyu village bu ne moo ëpp Médina moo ëpp donc mënuñu noo mënuñu noo loo ne noonu nañ defee foofu ay commune d'arrondissement ak yëpp def ko Sicap waa képp ko ay maire rek yëpp Gueule Tapée Fann da nga ak i ñu dajale nu rek ne nu yun ñëpp da ngeen di ànd mënul nekk mënu mënuñu daj fépp il nous faut ñu lancer par def un découpage politique responsable yi ñu ne ñi ngi mën a àndal ngeen ànd déggoo mais di liggéeyal parti bi di ko yaatal ma defe naa ne lii wàññiwul dara mais dëkk bi nag moom ginnaaw euh, ak droit la décentralisation bu ñëwee du ko jëlee ci commune yóbbu ko ci euh, jóko euh, ci commune rurale yóbbu ko ci commune yeneen village yi ñu waroon koo def ay euh, commune d' arrondissement yàlla dogal na loolu àggu ja ñun politiciens yi nag war nañu man def ay ay ay ay ay ay cadre de concertation yu mel nii du ab mouvement du dara lu cadre de concertation boo xam ne dañ ci jublu pour que di liggéeyal président di seetante ci suñu buur di nemmikonte di am suñuy doléance di ko wax te xam na ni ñun dañuy def pour loo xam dafay doole parti ak koo yaatal ak gën a indi jàmm ak yi nga xam ne gis nañ kenn ku ne ci coin yi mel ni ma dikkee ku mel ni Ibra ak ñu mel noonu kenn ku ne fa nga dëkk ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon président la nga xam ne moom la yëg boo ko yëgee nga jox ko madame Ndiaye ngi fi ak abo ak yéen kenn ku nekk su ko defee ñu yaatal ko jeunesse bu si ñu ngi fi loolu président mosu ko bañ président li muy bañ mooy xuloo ak xeex fukk yu dajee di xuloo euh, maanaam téeméer bu tasaaroo kenn ku ne ci dara moo ko gën waaw parce que bi ma fi amee problème président Moussa Selo loolu la ak yu mel noonu donc boo demee seetal sa ñi nga déggoon ngeen créé seen mouvement incha allah dinaa leen jàpp bu leen xulóote loolu la wax xam nekk ci angle xanaa xamoon bu ñu demee ba ci kanam ñun dañoo initier fii zone yi foofu ñuy wax ay zone yi day kër ñanga yëpp fenn fu nekk mu am fa ñu mel ni ay kilifaa nga fa kër ñang boo fa dem ay kilifaa nga fa yoo xam ne bu ñu toogee taabal dañ ko fees della def ay responsable APR bu dee Guédé aussi noonu barki dem donc ñun ñii fi ne kenn ku nekk fa mu nekk dañu fas yéene mu def fa benn cadre boo xam ne bii dana mën a représenter parti bi ci fépp loolu mooy suñu xam. moom Mor Gueye dellu si ni kat lii amul lenn tendance wala lu mu mën a doon ñoom de yëgal nañ ko seen ay nawle yi ñu bokkal parti bi ñu ànd si groupe bi nag li ko tax a jóg mooy sotti si ak def si rek la bu ñu sukkandiku ba tey si ay kàddoom. te jàpp naa ne jàpp naa ne jàpp naa ne Diagne jàpp naa ne APR Touba moo sax musul wasaaroo parce que tey démb rek ñu ngi doon ñu ngi doon jaale ji ànd ak Cheikh Abdou le mais jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp ku fa teewul démb sa représentant teew na fa bërki démb lañ doon lañ président yable ministre Dame Diop jogee Diourbel ñëw ñu ànd ak préfet sous préfet ñoom di ja di di ko jaaleel sëñ Basirou Fall alxuraan defe naa ne diggante Mbacke galo baa nga fa euh, Abdou Mbacke Ndaw euh, waa kër ñi ànd Sadaga nga fa ñun ñii ñu nga fa ak ñëpp donc man daal jàpp naa ne jàpp naa ne liy farata daal mooy ginnaaw saa yu nu bëggee booloo booloo def farata dellu soir kenn ku ne aussi na sa base na sa bokk di liggéey yaakaar naa ne dëkk bee toll noonu rek mais tasaaroo moom amu fi. cadre bi nag rafetlu loolu dialogue bi njiitu réew mi amal. yaatal loolu ba si kujje gi jàpp na ni loolu mooy stabilité réew mi. sant président de la république bu baax a baax ci ouverture bi nga xam ne def na ko euh, ak tàllal gi mu tàllal opposition bi loxo di féliciter aussi waa opposition bi tàmbalee ko président Idriss Seck ak euh, ministre Aïssata Tall Sall di sant itam euh, Omar Sarr monsieur le ministre di sant. Euh, Jean Paul Diaz itam ci wuy si gi ñu wuy si di demander opposition bi ci desam ñu ñëw ci dialogue waxtaan parce que amuñu dul senegal waaye nag di soññiwaat njiitu réew mi ngir nag mu mën a gën a jëli ñi nga xamante ni àndanoon ak moom jamono jii mu am jafe-jafe ginnaaw bi ñu rafetlu dajeem ak président Moustapha Cissé Lo. leneen li ci des itam di rafetlu taxawaayu soxna Marème fay Sall. ci euh, euh, dellu si gim dellu si jàmm donte mosuñu am problème personnel ci diggante président Moussa Selo ak euh, président Macky Sall waaye defaat gim ci defaat ba ñu waxtaanaat ba amaat ay ay ay ay ay yeneen relation loolu itam ñu ngi ciy lu madame madame fay Sall bu baax a baax a baax a baax. ñaan itam soxna madame fay Sall ak ñi nga xam ne ñooy bon volonté parti bi ñu bañ koo yemale ci ñaar ñooñu. bëgg nañ ñu gën koo lawal ci ku mel ni Aminata Touré ba lawal ko ci Moustapha Diakhaté lawal ko ci responsable yi nga xam ne ñoo ne APR yëpp pour que ñëpp dellu siwaat parce que ne ñoom ñoom nga jàmmaarloo lool ñi nga xam ne ñoom nga àndaloon ba ñu kii taxut a wax donc nañ jàppale président Macky Sall ci vision boobu. cadre de concertation yaatal APR ba tey seen ndaje bi ñoo ngi rafetlu taxawaayu directeur de cabinet yi Mahmoud Saleh mi nu jàpp ni fidélité ak engagement am ba njiitu réew mi tekk ci côté am. waaye nag li gën a waral nag euh, sunu jataay bi. mooy mbirum euh, le ministre Mahmoud Saleh parce que gis nañ fan yi yëpp ñu koy attaqué ci ay affaire nomination boo xam ne président nommé na te loolu ñi ci di waa APR ñu bëggoon wax ni euh, fi mu toll nii euh, ubbiku ci waxtaan ak dialogue ak yaatal fi lañ toll surtout waa APR yi dañoo war a def exemple comme li président de la république def ci ubbiku ak yaatal su defe naa ni président mak Sall kenn gënu koo xam li yoon wax ci nomination yi ak poste sàngam kan moo ak yan diplôme la waram kenn mënu ko ci kenn gënu ci donc bu euh, bu xamee président ministre Mahmoud Saleh ba xam responsabilité bi tey post yooy day post yu sensible yoo xam ni ñi ko mën a doon mooy ñi nga xam ne si le plan politique dinañ xam et puis sur le plan administratif nañ ci am kii tey itam euh, xam xam parti bi xam waa parti bi xam ñi président naan àndal démb bërki dem ak fi président dem parce que néew na euh, diggante 2009 ba tey foo xam ne fii président dem na fa ci Sénégal ak bitim réew te Mahmoud Saleh bokk ci ñi nga xam ne ñii ànd nañ ca nga xam ne tey bu lettre ñëwee présidence euh, jëm ci président di demande dara wala di fàttali dara Mahmoud mën na jël yenn décisions yi parce que xam na ni àndoon naag président sàngam te loolu la président di doyee poste bu mel noonu. kuréel gii nag di fàttali ëmb na ay responsable ñu mën seen nemmeeku ginnaaw moom Mor Gueye Serigne Moustapha Bousso Madické Dieng Mariama Ndiaye Ibra Sall Serigne Abo Niang Gora Mboup du Habib Kane nag soxna Assou Bassène ak ñëpp ñañ ca àndal fii si Touba.